fukki fani marathon ci njeexitalu session budgétaire bi njiital pencum ndaw réew mi gërëm jëwriñ yi député yi waaye rawatina taskatu xabaar yi. bu leen yaakaar ni gisuñu li ngeen di liggéey depuis bu ñu dooree li di session bi yéen a ngi suñu wet depuis bu ñu tàmbaleeg léegi te vraiment gis nañ ne taay woo leen. taxawaayu 7TV ci le plénière doon lu ñu ràññeeku lool. en plénière gis nañu du début à la fin 7TV dafa ànd ak ñun ñuy saluer initiative boobu parce dañoo jàpp ni assemblée nationale kat liggéey bu am solo bi muy liggéey pour askanam. jaadu na sénégalais di ko gis. ngir jox ay xibaar yu wóor askan wi ñu yëgal leen ci session bi yëpp la ñu nattal jëwrin gu nekk ak gafaga bu nekk fi ñu ko war a dugal. ñun bu ñu yeggee kër ga dañuy wax nañu li ñu leen doon seetaan set TV te loolu budget bi dafa nekk budget boo xam ne askan wi ñoo ko moom donc bu ñu koy voté askan wi dañ ci am droit d'information set TV a compris cela ñu jël ko def ko direct ba ñu nekk ci kër yi mën a xam xaalis bi nga xam ne moom lañ leen di voté fan lañ lañ koy dugal ak lan lañ koy def. set TV. wone en direct waxtaan yu jëwri ni sëkk ak député yi te ñu bëree rafetlu ko. député yi ñoom ñoo daje pour waxtaan wax ci li nga xamante ne si moom mooy budget bi liñ leen nar a nattal nattal gouvernement bi ñu war ko doxal ngir régler seen i problème ngeen ñëw di ko transmettre en direct di ko génnee population bi da xam ne exactement député yi lii mooy seen liggéey ñu leen di encouragé di leen féliciter par rapport au travail qui a été effectué jusque là. gannaaw bu ñu nemmeekoo ñàkkum télévision ci pencum ndaw réew mi 7TV moo yàgg woone liggéey ya nga xam ne ni moom lañ fay amal. Euh, depuis daaw yéen a ngi ci loolu. mais li nga xam ne moo ñëw chaque fois. mooy besoin am une télévision une chaîne kon tey 7TV dafa jouer rôle boobu. communautaire. Et chaque fois que l'Assemblée mu am de grands événements cette TV fait des retransmissions en direct. Assemblée war na ci budget am au moins subvention bu mu war a accordel TV. muy chaîne de télévision généraliste. cette TV dogu ci joxe ay xibaar yu wér te wóor. bu dee pencum ndaw réew mi askan bee ko tax a jóg cette TV moom mooy gën a lëkkale biile askan.